dal leen ak jàmm mbokk internet yi oustaz Tayib Socé jóge na ca rajo ba di RFM jógeem ci boobu boobule kër taskatu xibaar mbégte la indi ci ki li nga xamante ne ni moom mooy Ahmed Khalifa Niass moom mi nga xamante ne dafa jàppe lu nu mel ab ndam oustaz Tayib Socé nekkatul ca GFM maanaam groupe Futur Média moom waaraat rekat bi jotoon na jébbal ab bataaxal ngir foofu foofule ca këru yéenekaay bu Youssou boobu boobule kilifay kër ga mujj nañu dëggal boobule démission démb ci talaata ji yemoo ak fukki fan ak juróom ñeent ci weeru atum 2020 xibaar ba mujj naa law ba tasaaroo fépp daanaka ñëpp di ci waxtaan waaye ba mu toqee ca nopp ba Cheikh Ahmed Khalifa Niass moom kàddu yam ci yëkkati mel na ni loolu lu mu bëggoon la moom mi nga xamante ni daanaka ñu bari jàpp nañ ne nëbbul benn yoon ñàkk àndam ci ki nga xamante ne nii moom mooy oustaz Tayib Socé ak la mu daan wax mbaa na mu daan waxtaane foofulee ca rajo ba waaye itam jàpp nañu ne moom moomu la di Ahmed Khalifa Niass li jëlee ki lii di oustaz Tayib biir ndax coow laa nga tàmbalee ca ba mu ñëwee ca quartier général foofulee ca TFM yëkkati woon ay kaddu jëmale ci kile di oustaz Tayib Socé moom ni moom moo waral kile di oustaz Tayib Socé daal di jëbal ab démission kilifa TFM ya bi Ahmed Khalifa Niass yégée ne kile di oustaz Tayib Socé nekkatul ci groupe Futur Média daf ko rafetlu may leen ñu ay nopp ñu tegtal leen ay kaddu kile di Ahmed Khalifa Niass nee TFM mi ngi liggéey liggéey bu am solo waaye war na ko yokk ci wëyal raxas bi nga xamante ne tàmbali na ko ci mbir mi yaakaar naa ne jamono ji ci kilifteefu ki nga xamante ni moom mooy Birane Ndour TFM dootul nangooti ñuy génnee ak a wax ca télé ba loo xamante ne nii du dëgg dalee ko si tey lu dul dëgg dootul jëbati foofule ca TFM lii la Ahmed xalifa Niass waaye lam ca teg mooy jamonoy magu yi dakk na maanaam bépp njuuj njaaj jamonoy piis mbaa pat bët ak i tapp tapal jeex na Ahmed Khalifa Niass nee na ki ci nag léegi moom mooy ki nga xamante ne ni moom mooy Sen TV mi nga xamante ne moom dëgg-dëgg sax xam na li mu war a def wóor na ma ni sama xarit bi lee di Bougane Gueye du dellu ginnaaw mbaa du des ginnaaw ci li nga xamante ne ni moom mooy wareefam waaye itam ki lee di 2STV ak Sud FM ñoom itam génn guñu ci mbir mi ndax ba tey ñu ngi dalal ay faux waaraatekat yi def ay faux waxtaan léegi ñu yegg ci jamono joo xamante ne ni ñiy waaraate imaam rek la ñuy doon ak ñeneen lii la Ahmed Khalifa Niass wax muy kati ay kaddu di addu ci mbir mi nga xamante ne TFM Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal